Dakar notre jaa ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel la première chaîne 100 pour politique et people bu Sénégal ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy. Euh, ci Pikine Technopole <coughs> kër ngeen gis bu nekk sama ginnaaw mooy fi nga xamante ni mooy appartement Euh, bi Abdou Aziz Dabala ak ki nga xam ne moom mooy Mohamed Kano alias Wali dëkkoon jamono yi nga xamante ni je crois que mooy bi ñu koy jëlee bakkanam fii nga xamante ni moom mooy ci Pikine euh, Technopole fekk ko ci këram fekk ko ci appartement am daal di def jëf ji nga xamante ni muy jëf ju métti joo xamante ni képp kuy sénégalais yaa ngi koy naqarlu fi leen Dakar TV gis ngeen liggéey bu am solo bu ñu ci def dem ci euh, sur les lieux waxtaan ji nga xamante ni moom mooy waa kër Abdou Aziz Dabala mais ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy ci kër. Euh, fi nga xamante ni fii la Abdou Aziz Dabala dëkkoon gis ngeen appartement bi nga xamante ni fa la dëkkoon euh, am na nag révélation yoo xamante ni kii di gardien bi dëkk ci koñ bi ak kenn koo xamante ni yaakaar naa ni euh, dëkk na ci koñ bi jàkkaarloo ki nga xamante mooy ci appartement bi am na ay kàddu yu am salo yu mu indi dañuy bàyyee ñi nga xamante ni mooy mbokk yi ngeen topp ñu. ñoom xool yenn réaction yi nga xamante ne kii di gardien bi ak ki nga xamante ne moom mooy fast-food bi nga xamante ne moom moo joxoon Abdou Aziz Dabala euh, mujjee lekk ci addunaam ak ki nga xamante ne moom mooy ki dëkk en face fi nga xamante moom mooy ci euh, kër Aziz Dabala léegi léegi bala mu toppee ñu dégg leen ñu wax leen yenn ci révélation yoo xamante ne yaakaar naa ne c'est très important fii ci Feeling Dakar TV léegi kii yi bàyyi xel Feeling Dakar TV ba tey ñu ngi fii ci nga xamante ne moom mooy ci euh, duwaamu technopole di fi nga xamante ne mooy appartement bi nga xamante ne Aziz Dabala euh, fii la dëkkoon bañ fekk ko fi moo ko waali euh, daf leen jëf ji nga xamante ne ñëpp ñu ngi koy ñaalo sëñ bi ngi leen nuyu bu baax di la siyaar ñu ngi delloo siyaar bu baax di gërëm ñëpp di ñaanal ñi gaañu mooy Aziz Dabala ak waali ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla xaare aljanna waaw jambar yow euh, bu ma la déggee je crois que dëkkandoo woon ci fi nga xamante ne moom mooy ci ab Aziz Dabala fi mu dëkkoon euh, ban Aziz Dabala moo nekkoon fii ci koñ bi dëkkoon na yéen ñi nga xam ne yéen nga dëkk fii ci euh, diwaanu technopole ci koñ bi nga xamante ni mooy fii la léewoon fii appartement bi. ba en fait Aziz Dabala man yàggul bu mu ko xamee waaw maa ngi ko doon gis fii nag ci koñ bi. Euh, de temps en temps nag laa ko doon gisee parce que man moom lu may nekk côté bi bëriwul euh, boor bee laa bëri lu may nekkee mais Wally moom booy bi dama koy gis même dimanche bi 19h euh, dimanche bi si 19h la ñuy romb waaw gis nañ ko et puis macha allah man maa ngi dëkk en face gàllam bu ma toog taxawee sama balcon dama leen di seen dama leen di gis Quran dañuy jàng Quran ñoo ngi ak benn kaamin à chaque fois loolu laay gis booy bi di jàng. moom Wally loolu laay gis à chaque fois muy def. yow yaa ngi dëkk en face donc boo taxawee sa balkon da nga daan gis ñu ay alxuraan di jàng mais li Sénégalais yi yenn di wax parce que ñu ngi dégg ñu naan kat ñoom dañoo dund loo xamante ne maam euh, yëfu lu ñaaw la maam mbirum góor jigéen ñu bàmm ñu ma ci kàddu gi est-ce que yow loolu tey mën nga ci indi ay révélation non man moom wax dëgg yàlla am ma si benn révélation bu ma mën a génnee waa Sénégalais yi nag ñoom manqué wuñu lu ñu wax. loolu tamit mooy loolu ñoom lu leen neex da nga koy wax ah. waaw ak peu importe lu mu mun ci mel en tant que des musulmans nit bu dee lu baax ngeen war a wax ci moom waaw ak lu mu mun ci mel fii ku nekk am na ay ay défauts yu nekk ci moom waaw parce que ëllëg am na lu bëri lu nu war a bu nu jàkkaarloo suñu borom am na lu bëri lu nu war a wax xam nga lu dul yenn détails yi waaw nit moom xam euh, respecter nit ñi bañ a amal ak kenn ak loolu mooy l'importance man loolu laa gis parce que fii koñ bi macha allah ñëpp. xam na leen ñëpp amuñu kenn problème. bu particulier nga amoon ak kii xam ne mooy Abdou Aziz ndax boo rombee dina laa nuyu dina jàmm si te yow tout ça wala. ñoo bu rombee moom day nuyu moom saa bu fi rombee day nuyu gars yi bëggee gars yi waali tamit. nuyoo nuyoo bu sew wala yëfu star wala. non nuyoo man mosuma xam ni sax danseur la wala star la parce que dafa wàccee boppam man loolu yëpp xam ma ko woon bu mu gaañee laa xam ni kii danseur la woon ba euh, nit bu mag la si réew mi wala kii xam ma ko woon parce que xam nga fii fii presque kilifa rek ñoo fi dëkk. waaw puis ñëpp tamit ñoo tolloo fii ñëpp xamante ni waaw noonu la demee. appartement bi nga dëkk fa la moo jàkkaarloog appartement wu Aziz Dabala ñi ngi dégg ñu naan am na ku dëkk ci biir appartement boobu mu ne kat moom déggoon na ay yuuxu euh, le jour bi nga xamante ni ci lañ leen faat ki nga xam ne mooy Abdou Aziz ndax loolu moom mën nga bu amee rek ku nekk dina am ay supposition yu muy yore euh, ñenn ñi dina am ay remarque xam nga ñu bàyyi woon xel waxaat ko. mais ki waxoon yuuxu yi kooku on dirait que samedi la waxoon te samedi je samedi amul woon dara parce que booy bi dimanche romboon na fi dimanche 18h 19h romboon na ci boutique bi ñëw ba jël café jëndi café ak yooyu noonu dem waaw donc cela veut dire dimanche ñoo ngi woon fii waaw euh, te fii koñ bi fii li fi gars yi di bañ a nekk bëriwul fii à chaque instant ñoo ngi fi ah. affaire bi nag moom xaw a yéeme ñun ñëpp nag loolu moo xaw tiital nit ñi tuuti parce que crime bi am na kenn yëgu ko. waaw en tant que ci biir koñ ñun ñëpp ñoo bokk ci benn koñ te fii bu benn bruit bu fi defoon gars yi dañuy yëg mais jour boobu nag dimanche bi man laa gën a foog parce que dimanche bi amoon na combat bu amoon te ak euh, Magic bi ak gars yi musique yi di doon daw bruit bi xawoon na bëri tuuti nag peut-être nag man loolu loolu laa sóoraale mais xam ma nag. waaw ah, nan nga yëgee affaire bi nan nga yëgee crime bi quoi ba instant nga xam ne lii kat y a quelque chose crime bi mardi la mardi la woon mardi da nga ko yëg ay 23 heures minuit ah ñoo ngi toog ba ñu gis ay auto police di ñëw gars yi policiers yi ñëw fatt koñ bi partout waaw ñu nekk di laajte nag waaw psychologiquement ñu laajte qu'est-ce qui se passe après nag gars yi soogaam tegal man ci ci gaayam ni laa ko déggee sax moom Aziz Dabala ay gaayam yu fi ñëwoon jour boobu ñoom Nabou lay ñëw ñun ñoo taxawoon ñun ñëpp fekk si ñoom laa déggee di wax ni. rey nañ kii jam nañ kii si biir def nañ kii nii def nañ kii nii xamee ni carrément que y a quelque chose qui se passe. ku dëkk koñ bi yow nga dëgg ci gis ay police taxaw fii ñu baale koñ bi exactement est-ce que nekkoon benn psychose yéen li nga xam te ne nga dëkk ci biir si ci koñ bi. est-ce que nekkul woon. quoi benn sukkos maanaam benn jaaxle boo xamante ni ngeen di jékki gis ay benn oto police ñaareel police taxaw fii ñu baal koñ bi gauche droite est ce que yéen ñi dëkkoon fii amoon la nga xamante jaaxal quoi instant boobu. non ce n'est normal daf ñuy jaaxal parce que ñoo ngi fi dëkk si koñ bi man presque je suis là presque deux ans et demi maa ngi fii fii mosuma fi dégg xeex mosuma fi dégg sàcc mosuma fi dégg dara waaw. Euh, bu demee nag ba ngeen dégg crime am fii et puis koñ bi nga xam ni koñ daawul wéet. ñëpp xamante puis macha allah fii ñëpp xam euh, dëkkandoo bi mu ngi daw fii comme pas possible waaw affaire bi nag moo tax mu xaw a jaaxal nit ñi mais. dëkkandoo yi ngeen nekk fii est-ce que yéen doon demante di di ñëwante parce que tey ji bu fekkoon tey ji xëy na amoon benn benn benn. la fois passée am na ñeneen ñu fi ñëw la la même chose la tegoon man fii town bi Sénégal gars yi doon am problème dëkkandoo. Euh, dëkkandoo da war a di gaayanoo dëkkandoo da war a boo yeewee dem xool sa dëkkandoo si lu mu nekk loolu mooy yoon mais fii xam nga gars yi dañu bëgg dund dund tubaab nekk si biir si appartement tëj tëj boobu du loolu mooy sécurité non non sécurité bi mooy ubbi sa xel bi ak sa xol bi partage ak nit ñi en tant que xam nga tu es citoyen en tant que voisinage loolu mooy yoon mooy tax xam tey bu la dara jotee man naa mun a wax ni ah man tey gisuma diw xaaral ma dem gis ko xam mooy indi. Euh, waaw loolu mooy indi sécurité bi mais insécurité bi gars yi di wax fii am na sécurité am na gardien am na lépp euh, koñ bi bu fi nekkee ba léegi gis ma benn problème. bi am na gardien euh, ñi fi def def ji dëkk ñu fi amaana ñu dugg ci koñ bi def lu def te yéen nekk si koñ bi ay gardien yi fi xamuñu exactement que amuñu leen infiltré loolu tamit du benn défaut wala. ma en fait mënul nekk défo c'est parce que euh, xam nga mënoon wax xam nga dara boo ko xamul ak dara bu musul xew yow si bàyyi sa parce que dem na ba mu xew deux jours kenn yëgu ko cela veut dire gars yi bàyyi ñu ci woon xel fii nit ñi dañuy duggante dañu duggante cinq cinq euh, ñoom nag ay locataire nu batiment bi tamit yàggul waa am na ñu fiy dugg xam nga nit ñi xamul bu doon léegi sama sunu bâtiment la rek daa ñu xam ne ñii carrément ils font pas partie xam nga euh, ñoom tamit ba mosuma dugg nag si biir seen appartement xam ma noonu la fa demee mais man benn affaire moo ma xaw a jaaxal nag euh, crime bi mu am ba deux jours kenn yëgu ko kenn du c'est un peu bête daal man affaire bi dafa wax sànq turu nabu Nabou Leye yaa ngi wax sànq turu euh, Nabou Leye euh, te yow nee nga ma sànq da nga ko gis mu dugg ci kër gi ci appartement bi di di demante ak kii di Aziz Dabala en tant que gentleman boo ne jàkk boo daan jàkk Nabou Leye di ko xool ci bët euh, ban jigéen la la kii jox. bon c'est un peu difficile parce que nit bu nga xamante ne depuis 2005 ba toll fu ngeen toll nii. même bu dee am na intention def la lu bon yaakaar ma dina am intention rey la lu des li nag xam nga lu nekk sa ça dégénère mun nga def dara mu dégénéré mun nga créer un complot avec tes gars mu mun na tamit ba elle n'était même pas au courant ba c'est un peu difficile daal man moom côté boobu noonu damay wax c'est un peu difficile parce que ay gars noonu yàgg na waaw ah, donc nag man gisuma ban intérêt lay am moom di koy na ngeen gisee Ndongo Leye mu ànd ak Aziz mosoo woon yaakaar ne kat dina dem jëf ju mel ni dina mas am ko non même loolu moo tax nag affaire yi gars yi ñëpp jaaxle xaw a jaaxal nit ñi parce que kenn mosul foog loolu te même jour boobu noonu ay 17 heures xam nga 18 heures yooyu noonu laa ko seen fii mu taxaw ba ay 23 heures na Ndongo Leye gaa ko fi seen mais loolu yëpp doo ko xalaat parce que ay gars yi nañu depuis 2005 ba léegi. presque a fait est-ce que nekkul 17 ans wala 18 ans wala 20 22 ans du moins xam nga la veut dire yàgg na waaw donc nag am na leen lii tamit demee ba xew ba. bis bu ñu gisee corps bi ba ko bës génnee fii coow li bëri woon na ñu dégg nabalee ci benn vidéo muy wax naan acide dee na acide dee léegi léegi dee xam nga wax boobu noonu boo ko déggee nan la def loolu loolu après la man lu ma fekkee laa wax man fii bu ma fekkee woon fii maa ngi doon gis waxul nag mu ngi doon jaabante gauche droite waxul moom noonu lay. waxul woon dara euh, dégguma muy wax sax mais seulement boo gisoon kanamam moom daa xam ni waaw euh, elle souffre waaw elle souffre nag et puis c'est normal sa xarit même boo teyoon sax ray ko dalay métti waxuma nag xam nga euh, ñu jiiñ la ci complicité wala soit ñu bañ la jiiñ sax yow fekk sa xarit ñoom mu ngi dee bu dee ñit nga dalay déranger man nag kanam boobu laa gis mooma ah. mais lu des li nag xam nga rek police jàpp na ko mu bokk ci set personnes yi nga xam ne moom mooy les présumés meurtriers ñu ngi nëbb Nabou Leye mi ngi ci biir loolu ak na nga gisee woon Nabou Leye ci décès bi ak yeneen jours yi loolu lan nga la lan nga la inspiré. waaw en fait euh, lu mu la wax rek daf maa xaw a jaaxal rek parce que man foogu ma woon loolu ñëpp la jaaxal sax parce kenn foogul woon moom duñ ci bokk mais euh, vu que nee na ñu ko def ay xaritam nan xamoon nan cela veut dire ñoom yëpp xamante nañu. donc forcé même bu ci bokkul euh, gars yi mun nañ ko woow wala mun na mun nañ si dugal numéro wala mun nañ ko woow sax wax ko def nañ li def nañ li parce que gis nañ ko plusieurs fois ah, nit def crime pare woow la naan def na parce que crime moo yombul rey nit doomu aadama boo ko reyee forcément da ngay perturbé wu mun naa mun nañ la woo mun nañ ko woo naan rey nañ ko wala mun nañ ko woo naan amal jote naa ak ñoom wala soit tamit mun nañ ñoom bokk sax complot bi après ça affaire bi dégénéré mais en tout cas moom c' est c' est waaw c' en tant que jeune booy Waly yow loo mooy loo loo war gis si moom Boy Waly jeune bu cool bu freedom wala. Waly moom euh, free rek laay seede ci moom bu mu ko doon gis fii koñ bi dafa free sequl ak kenn wax nag day dem boutique ba dem mission am ñëw dugaat gàllam à sax ci kaw gàlle bi laa koy gis yore portable am wala yore kaamine di jàng booy boobu nag laa gën a xam. moom laa gën a bëri di gis sax fii par rapport ak Aziz man Aziz pour man dëkku fi woon sax mais da ko doon gis fii muy ñëw temps en parce que fii ñu fi ñëw bëri na te am star sax yu fi ñëw des fois si koñ bi nii pour man ay passagers rek nañ mais moom booy bi moom xamoon na fii la dëkk et puis macha allah yàlla na yàlla yërëm booy bu may seede ci moom lu baax laay seede ci moom day jàng Quran bi moom da nga koy gis chaque fois mu jàng te waxtu bi da nga ko gis mu koy lépp parce que chaque fois may gis mu ngi sol benn abaya mu ngi taxaw si balcon bi di jàng waaw loolu rek laa bëgg lu des li nag ndax xam nga rek. bu ma gis Wally kan nga mujjee gis ak ak la ko def ba nga ko gisee. c'était le dimanche dimanche ay 19h yooyu la ñu romb ñoo ngi ci buntu bu bi ñu romb foofu ay 19h mu ngi sol le même habillement mu soloon euh, après ça nag jour boobu mu rombee dem naa sax ba wax samay xarit bi bro bi booy bi booy bi cool la mais benn affaire bu ñu rombee lu ñu nuyu peut-être nag xam nga day yaakaar ne ay bandi nañu wala day yaakaar ñu ne ay leneen town bi kenn wóoruwul keneen ki peut-être loolu la mais moom gars yi bu cool jour boobu loolu laa doon wax mu ngi may romb dem ba ci kanam xam ma koy xool di koy toppal ay bët xam nga rek mel ni ku ko sentir wala quelque chose d'autre affaire bu mu xewee man daal parce que euh, xam nga rek xam nga nan nga koy waxee xam nit des fois am na leen da nga koy sentir waaw te euh, c'était le dimanche dimanche si guddi 7 heures xam nga 8 sept heures huit heures euh, sept heures huit heures xam nga six heures maa ngi doon toog sama balcon ci kaw seen naa seen lampe mu ngi taal mais doo ci bàyyi xel parce que xam nga rek euh, li mu lu nga xam ne am na leen mënoo ko foog quoi voilà mënoo ko foog sax mënoo foog ni fii crime din fi xew waa kër jàmbur crime te nga xam ni jaar crime bi nii parce que mus na am ci temps bi fekk nit ci biir euh, appartement yi rey leen deux personnes moo tax ma ni la affaire ak lu mu munti mel. xam naa ne dafa dégénéré du ma policier du dara mais man loolu moom am naa la certitude que dafa dégénéré ak lu mu munti woon mel peut-être xaalis moo leen indoon peut-être leneen moo leen indoon peut-être sax xam nga ay projet moo leen indoon mais dafa dégénéré bu dégénéré wul woon du dawee noonu waaw rey ñaari nit moom loolu même ku màndi woon sax euh, warul yor comment dirais-je xol boobu warul yor xel boobu waxuma la xol bi sax yore xol rey ñaari nit pare nga dem moo tax man daa dégénéré bu dégénéré nag. doo xaw métti quoi. habitant ci koñ bi euh, ban message ngay jox autorités yi rawatina fii boobu maire la maire mu mën a bàyyi xel waa koñ bi ak insécurité bi nga xamante ni souvent day ñëw fii lu bëri bari bëri. baax euh, maire bi moom xam ma sax man pour man quartier bi amul maire sax du ma fenn quoi parce que euh, gisuma ay ay travaux am gisuma fi dara bu fi nekkee deux ans ba léegi maire dama koy dégg rek de maire maire mais mosuma gisee affaire am. lu des li nag état bi moo war a jël ses responsabilités jël seen disposition yu. seen i kàddu xam na nan koy waxee xam nga olof bi dese na tuuti quoi waaw loolu la ñoom ñooy jël seen i disposition euh, maa ngi dégg ñuy wax ni euh, crime yi bëri na si dëkk bi crime yi bëri si dëkk bi drogue ñoo koy def dugg na fi génn fi non non non euh, yi nag il faut ñu gëm yàlla nag d'abord avant tout gëm yàlla parce que am nay période bu sonn sa boobu muy fii man je suis mauritanien muy fii muy Mauritanie muy Mali muy feneen am na ay période ay décès day bëri ay crime day bëri surtout ak nouveau régime bi day bëre loolu nag xam la moo koy dindi ñoo nga ay xalifa yu mag ñoo nga ay xalifa yu mag ñoo ñooy def ay ñaan wax gars yi nañu war a génnee pour mu wàññi affaire yi loolu moo koy wàññi mais état bu ko waxee mun na ko wàññi c'est foo ñeneen bu nu waxee mun na ko wàññi c'est foo loolu rek moo koy wàññi parce que loolu day am day am période ñi di lab dañuy bëre day am période ñi ñuy rey day bëre day am période ay xale yu dee day bëre loolu bu sono sa bopp loolu yàlla moo xam nga moo bindee noonu moo te nit ñi mënuñu si dara lu des li nag c'est des conséquence waaw da ngay def dara après ti verras conséquence waaw loolu la nag mais moom état bi maa ngi leen di ñaan nag nañu jàppale booy yi parce que am na leen ni tamit ba bien vrai que mënuñu si dara euh, c'est des trucs yu nga xam ne c'est involontaire waaw mais mën nañu jàppale booy yi ñoom état bi mun nañu jàppale booy yi gatsa gatsa bi bu ñu doon topp ñun ñii di xaru di rey ñun lu ñu rey ci booy yi rek doy nañu. waaw instant fii bu ñu doon fii dem grève fii rey nañ fi comme combien de personnes combien de jeunes nañ fi rey loolu rek waroon na doy ñoom bu ñu toogoon bu ñu ñëwoon seen premier acte dafa waroon doon waroon xool booy yi xool nu ñu jàppale booy yi waaw surtout nag loolu man man message boobu laa am bu may lancé sama turandoo Diomaye ah. mbokk yi bàyyi xel Feeling Dakar TV ngi leen bu baax a baax di leen ziar di am mbégte ci ànd bi ngeen ànd ak yaakaar naa ne tey ñu ngi fii ñi nga xamante moom mooy euh, Pikine Technopole boo waxee Technopole sa xel dem ci li nga xamante ni moom mooy la meute bi nga xamante ni mooy meurtre Aziz Dabala ak Mohamed Gano ñu ngi ko xam ci Wally Euh, fi ñu toog nii mooy euh, buntu bi nga xamante ni mooy appartement fii Abdou Aziz Dabala dëkkoon mook ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Gano Waly euh, ñu fekk leen fii jël nañ jël seen bakkan ci jël boo xamante ni su ko daaka ñëpp ñu ngi koy ñaalu ñu ngi toogoon nag koo xamante ni dëkkandoo ci koñ bi mooy un certain aada nekk koo xamante ni sax gars yi ñu ngi koy toog naa ko moom mooy enquêteur de koñ bi aada ñu ngi leen nuyu baax a baax di la ziar di rafetlu ci sa waxtaan ak waa Feeling Dakar TV waaw maa ngi maa ngi leen nuyu di leen ziar waa maa ngi maa ngi leen nuyu di leen ziar waa waa Feeling Dakar waaw di nuyu Sénégal gi yëpp di di leen bégee di leen delloo njukkal bu baax a baax. su koñ bi nga dëkk yaakaar naa ni fréquenté nga wala boog xam nga kii di Aziz Dabala euh, ban dëkkandoo moo nekkoon kii di Aziz Dabala. waaw Aziz Dabala moom vraiment nekkoon na nit ku baax ak booy waali euh, te bu la romb fii heure mu Moussa romb fii ma toog daanam romb mu ne ma jàmbaar ma ne ko ça va ça va bien mu dem xam liggéey. beneen booy bi tamit nekk booy bu cool daal ah, affaire bi tamit xam nga ba mu xewee jël jëlee nañ kaw waaw ah, ñun ñëpp di leen ñaan xam suñu borom xare leen aljana si barke Cheikhul Khadim waaw. Ah. ban comportement nga gisoon ci Aziz ndax bu doon tomboon dina faral saafoonte ak yéen nuyu leen euh, jàmmasante yéen ban comportement ngeen gisoon ci keneen moom mooy Aziz Dabala. mooy comportement bu jullite rek parce que man moom euh, boo ko njëkkee gis euh, heure bu la rombee seedi julli bi ngay njëkk a moom quoi. parce que nit boo ñëwee si koñ rek daanaka sekk ak ñëpp jàmm koo romb nuyu ko koo romb sekk ak moom jàmm rek kon comportement bu baax daal laa laa laa gis si moom waaw aussi di ko ñaanal jàmm rek yàlla suñu borom. depuis kañ ngi dëkk yaa ngi ci koñ bi fii nii. bi yàgg naa fi war naa fi mot ay 9 ans waaw war naa fi def ay. baax fii quoi xam nga baax fii nii. waaw xam naa bu baax fii nii waaw. insécurité dafa am prix parce que ñàkk kaaraange bi am parce que boo xoolee ni ñu reyee Aziz ak Waly doon dong loo xamante ni ñëpp ñu ngi koy ñaaru ndax insécurité bi ñu naan fii Pikine fii dafa am dafa manqué moom góob ma ko quoi parce que fii moom na am na sécurité daal parce que am na ay gardien guddi fii boo xoolee gardien dafiy toog man fii ma nekk nii gardien laa fa quoi aussi tamit koñ bi daanaka bëri na ay gardien te fii li ñu fi euh, lu fi ñi ñi di. di toog si mbedd li si nit ñi di dox toog si mbedd moo ëpp fuuf waaw insécurité moom góob ma ko fi quoi parce que li mel ni maa ngi koy soog a dégg waaw mosuma fee gis sax ku jam nit wala ku ku def fii lu ñaaw maa ngi soog a dégg lu mel nii quoi yàgg naa fi dara. li fi am kon crime bi am fii ñu ko fi def dëkkuñu si quoi dañ dañ fay ñëw rek wàll wàll wàll yaan ci quoi. voilà waaw gars yi dañoo jóge dañoo jóge feneen rek ñëw def li ñuy def quoi am nga léegi nag bu ko defee ñu saltel waa dëru Technopole mais Technopole moom ay responsable ñoo fi dëkk laa a xamal gars yi ay ñoo xamante ni ay ay borom ay kilifa daal waaw ñoo fi dëkk ñi nga xamante ni yeneen ñi ci des nag ay locataire lañ dañuy ñëw xam nga loué quelque temps ñu dem xam nga keneen ñëw duggaat mais ay ñu ñu ay responsable daal ñoo fi dëkk daal waaw. sànq gardien nga fi fii nii ci ci koñ bi te da toog souvent ci ci koñ bi quoi di xool sécurité bi bis bu ñu def lii Aziz Dabala yow foo nekkoon. non instant boobu moom euh, dimanche boobu. daanaka ay 22 heures laa tëdd lundi bi tamit daanaka damaa teel tëdd parce que jour lundi bi da doon taw waaw samedi bi daal laa xam ne toog naa fi bàyyi cinq heures 6 heures mais gisuma kenn ku fi dugg quoi dëgg fa neex yàlla mais. ndax yaa ngi ndax li ngay toog fi souvent ndax yaa ngi fi gis ñoo xamante ni ay ñoo xamante ni daal c'est un étrange ñoo xamante ne xam woon ci koñ bi ko waaw des fois day am xam nga moo demee noonu ki nga xamante ne tey dafa am këram ñëw dëkk di nga xamante ak waa këram ñëpp. mais tey kii day loué appartement kii loué appartement kii loué kii loué léegi nag ñu fiy dugg ak ñu fiy génn doo mun a xàmmee kenn waaw noonu la demee. gardien euh, ba nga gisee li xew wala nga dégg affaire bi d' abord en tant que gardien lan la lan la nga def yow est ce que ça t' a pas remis en question yow ci sa wàllu liggéey quoi. waaw affaire bi moom ku yaboo rek sóoraale quoi comme ni may wax rek waaw ku yaboo rek sóoraale xam na ne àdduna aussi euh, jël sa matuwaay parce que jamono jii nii man li ma crime yi may dégg yëpp. ñu la xam rek ñoo la koy def ku si nekk tamit na nga jël sa matuwaay xam ñi ngay àndal xam ñi ngay dugal xam xam ñi ngay xam ñi ngay toogal aussi tamit euh, ngay ngay ngay ñaaw njortu daal si nit ñi voilà bu nekk doomu aadama bu nekk tamit war nga mun a doxee noonu quoi waaw. AG pare ñëw nga fi xool ak policier yi gis nga corps bi wala gisoo ambulance. non no yi daal dama doon dama nekkoon si biir sama biir kër laa nekkoon ma jekki jékki ay euh, ay. Euh, ay euh, comment dire euh, ay 23h 22h 23h si laa gis auto police yi ñëw si laa laajee nag si lañ ne ma am na ku ñu crime fii quoi voilà loolu daal laa si am di leen ñaanal suñu borom xarale leen aljanna message nga jox képp koo xamante ni jeune nga képp koo xamante ni xëy na euh, yu mel ni bëggoo mu dal la wala nga yow nga nekk comme en tant que agent de sécurité la ngeen di conseil pour ñu gën a moytu quoi ci lii xam bu jël seen ay matuwaay. waaw jeunes yi moom lu ma leen di conseil rek mooy ñi ku si nekk da nga wut loo def. parce que man tamit loolu laay dundee quoi du doomu aadama bu nekk war nga mun a xëy liggéey xam nga jàppale sa waajur jàppale sa waa famille xam may ñëpp jàmm boo amee lu boo amee euh, cent franc nga xam ne nga doyloo ko doomu aadama mooy doyloo rek aussi nga téye sa ngor parce que loolu mooy tax nga mucc si àdduna parce que ñu ñi fa la ñu rawante quoi waaw téye sa ngor waaw doomu aadama yi tamit loolu laa leen ñaax képp kuy jeune lu la yàlla may nga xam ne yàlla may na la ko lu la yàlla xoj nga xam ne xañ na la ko quoi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 Dakar, notre plateforme d'information.